waaw euh, ñu gis na fan yi am na sa procès bi nga waroon a am ak Mame Mbaye Niang et finalement reporté pour le 17 juin c'est comme ça. waaw waaw est-ce que mën nga ñëwaat ci problème boobu de manière avancée. waaw mais bon je pense que loolu li si amul grand chose bu si wax li ñuy wax rek mooy et que mooy kon li ma wax wax ko waxaat ko li ñu def lu dul xaar justice lan lay wax. Hmm. parce que li am solo mooy moom xam na man xam naa. Hmm. moom xam na ni moom xam na boobu noonu li xew quoi. Hmm. bon nag daa am ay mbir yu ni pour man ay détails la quoi. nekk si léeg-léeg dañuy xa dañuy bàyyi ba le 17 juin rek. mais dem nañ keroog euh, mhm. démb dem nañ tribunal. Mhm. après juge bi ne euh, pour paiement de consignation yooyu moo tax ñu. renvoyé ko ba le 17. non bu ñu doon problème bi Sénégal mhm. nekk ni. c'est-à-dire ci manifestation trois jours yu métti deuxième jour bi. sama grand bu nekk États-Unis dafa ma woo téléphone dama Karim Mame Mbaye Niang ministre moo bëgg gis président Sonko. waaw léegi nag vraiment waxoon nañ ko dañ koy jox sa numéro parce que concurrent bi sama waay la mais comme mën nga ko yóbbu ci Sonko may leen du man maa ko yóbbu ci Sonko loolu la quoi parce que en man du ak ànduma ci Sonko di di ak politicien yi loolu yàgg naa ko wax mhm. donc loolu la ëllëg moom nag xëy na man bu muy toogaatee gis ko ci télé yi muy attaqué Sonko ma ne du kii ma daw laaxu mhm. loolu la quoi donc moom peut <laughs> day bluff day bluff di bluff sénégalais yi quoi mais bon mhm. mu ngi noonu daal. ok mm. question palestinienne. Mm. muy li nga xam ne nii lëmbe na àdduna si yëpp euh, alors euh, démb gis nañ ne doon euh, vous avez participé à une manifestation boo nga xam ne nii da ngeen doon soutenir waa Palestine. est-ce que si sa xalaat. Mm. ndax Sénégal particulièrement ou bien de manière générale pays africain dafa am taxawaay bu ñu ci waroon a am te amuñu ko si ou bien. waaw mais xam nga Sénégal nag relation Sénégal ak Palestine dafa yàgg du tey mm-hmm. Yasser Arafat Sénégal moo ko joxoon passeport diplomatique. ku Sénégal la doon voyager Senghor moo ko joxoon te loolu à l'aide de ay sëñ Fallou Baye Niass mhm. ay sëñ Babacar mhm. sëriñ ñoo doon ñoo doon boobu noonu quoi mhm. c'est-à-dire pour nit ñi comprendre ni relation boo xam dafa am Palestine ak euh, Sénégal dafa yàgg Palestine cinquante quatre états yu nekk ci àdduna bi rek ñoo accepté seen ambassade Israël dafa foqati réew bi seen loxo

bu ñu jugee manifestation ñu def ko ñu def ay actes yu fort. yoo xam ne ñu xamal jullit yëpp. xamal ñëpp ne leen palestiniens yi deewuñu rek parce que seen territoire lañ jël. mais dañuy dee parce que ñetteelu bërëb bi gën a sell ci islam foofu la. loolu diine dafa alxuraan dafa tudd euh, baytul maqdis que li ñuy seen terrain bi ñuy tuur dañ koy tuur pour sauvegarder bërëbu islam kon musulman yëpp lañ tuural seen terrain donc yooyu histoire bu Palestine ñu expliqué ko nit yi comprendre nga. Mhm. donc yooyu dafa am solo quoi dafa am donc xeex bi warul yam ci nii nii nii. déedéet déedéet dafa war a ànd ak ay actes yu fort fexe ba Sénégal. Mhm. Euh, ñu dagg relation diplomatique bi Sénégal ak Israël ak ak non ren manifester mhm. ci buntu ambassade Israël. lakk drapeau d'ailleurs sax suba fii ci manifestation fii. affaire góor jigéen dañuy lakk drapeau Israël. lakk drapeau LGBT. dinaa ko def maa invité média bi yëpp. waaw day am séance boo xam dañuy lakk drapeau LGBT. incha allah donc mu mel c'est que ñoom ñoo nekk di yoot rek ak état du Sénégal di bëgg mu officieuse di dugal ndànk dossiers te teg seen programme di xeex pour samp ko ñun aussi moo tax ma ni gars yi léegi amatul toog ñoom dañu am seen programme ñun aussi ñoo am suñu programme hmm. boo xam ne dañ koy samp dëgëral ko pour teel a criminaliser góor jigéen ñàkk suñu Sénégal balaa tubaab bi di ko yàq hmm. ak seen loi yi nga xam ci àll ba lay jógee ñu koy dugal seen marionnette yi mooy comme Macky Sall ak euh, ñu àndal donc mën nañ jàpp ne dañuy dox ci daal di valider góor jigéen waaw ah loolu amul sikk loolu amul sikk loi bi ñuy criminaliser loi mais dañ ci dugalaale pour légaliser homosexualité mais képp koo xam ne jàpp nañu ci homosexualité boo amee 18 ans garaawul quoi acte contre nature boo amee 18 ans rek amul problème mais bu dee amoo 18 ans nag foofu lañ lay jàppee quoi mooy mineur nga <laughs> mais attends Sénégal criminaliser homosexualité dañ ne ñoom acte contre nature lañ wax en voie publique acte contre nature mais <laughs> voie publique moom laay wax keroog ma ne xanaa sa soxna sax doon moom ci biti acte contre nature yu góor jigéen du du kii nee nañ góor naturel. donc yooyu yëpp ay prox ndol yoo xam dañ koy def si di ko utiliser di ko dooleelee góor jigéen te Macky Sall wax na bi mu demee ci bi. nee na euh, euh, journaliste ko est-ce que vous avez des homosexuels mu ne ko on a des homosexuels chez nous. donc est-ce qu'ils peuvent manifester mu ne ko mais bien ah moom pas en tout cas pas avec le gouvernement. léegi nag le gouvernement kan mooy gouvernement bi. le gouvernement est là pour pour pour le peuple le peuple c' est l' état l' état c' est nous. c' est nous l' état ñun ñoo def choix bi léegi gouvernement bi nag bu fekkee góor jigéen ñu am problème ak ñoom. léegi góor jigéen bu ñëwee ñun amuñu problème ak ñun problème. ñun le peuple lañ bëgg ñu jug nag tout le peuple sénégalais ñu wane seen mécontentement ñaxtu wan opinion internationale que le Sénégal di non à l'homosexualité teg tëgg suñuy texte yoo xam ne dañ koy jox député yi ci assemblée nationale ñu voté ko criminaliser góor jigéen Sénégal ñu avancé xool leneen ak leneen dugg ci daara tamit xool nu ñuy gérer daara xool nu ñuy gérer leneen ak leneen leneen loolu la parrainage bi nga xam ne nii kaas nañ ko ku nekk wax na. Mhm. mel na ni CEDEAO jël na ndogal. Mhm. mu dafa bëgg ñu supprimer loi bi. waaw mais ban jàngat nga ci xam nga CEDEAO médecin après la mort la. Mhm. ndax bi Sénégal yi nekk fii di xeex di wàcc manifester pour pour pour pour parrainage bi. boobu ñoom fu ñu nekkoon. c'est-à-dire yooyu la quoi c'est-à-dire man benn man benn instant man CEDEAO dama yu xew yu en Afrique. comme Mali li fa xew. man benn instant dama ne mooy ana waa ana waa CEDEAO cest à bu xaw ma nag xaw ma nag la muy seen xaw ma daal man comprendre ma offert seen rôle ñoom dëggantaan quoi la muy rôle CEDEAO lan lay jëriñ africain yi waaw mais lenn xam naa ko quoi mooy depuis que Macky Sall di gouverner ba léegi amul lenn loo xam ne fii démocratie Sénégal ñoŋ ñoŋal na ko ñoŋ bu normal da ko delloo ginnaaw te loolu je pense que du du lu bees quoi que parrainage bi euh, c'est euh, euh, dafa nekk loo xamante ni pour sàcc élection yi la fichier électoral bi baaxul dama ko amul transparence élection Sénégal yi yooyu yëpp loolu dafa loolu bisi la fanaan te ñoom ñëpp xam nañ ko hmm. te Afrique yëpp ñu ngi toog seen bët euh, occidentaux yi ñëpp a ngi teg seen bët Macky nekkee dictateur ak hmm. di expliquer di wax duñ ci jóg duñ fi jóg quoi xam lu am solo hmm. mooy peuple bi comprendre te ñu fexe ba opposition bi jóg société civile bi jug askan wi yëpp jug ñu fexe Macky defaraat fichier électoral bi ñu respecté élection xam nga élection yi nii xam nga ñu naan def jàpp nañ date pour élection euh, locale yi mhm. élection locale yi mhm. avant ñu doon jàpp dañu waroon taxaw lijjanti fichier électoral ba pare fexe mu nekk loo xam ne day normal mhm. xale yëpp dem bindu ji waat ñu changé fichier bi taxaw ko ba mu baax comprendre nga c'est que yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne yu ñu war a taxaw la te loolu Sénégalais yi euh, opposition bi dañ ko négligé ak Macky quatre-vingt-quinze élection bu fekkee fichier bi moo donc donc négligence su opposition bi ngay wax yow non am na ci wàll am nañ ci wàll. Hmm. du opposition bi cest à Sénégal pour man affaire bi dootu sax ay opposition. Hmm. Sénégal yëpp ñoo war a jóg hmm. nekkoon. ci fulla fayda. te mi ngi commencé ci fexe ba transparence am ci élection. datu élection ñu respecté calendrier républicain bi. datu élection ñu respecté ko ñu xam ne bii lañ war a c'est-à-dire mos nga gis. président bu falu Sénégal nit ñi di manifester pour pour c'est grave. Karim euh, question bi nuy jeexalee rek mooy sa digganteeg Ousmane Sonko. Mhm. lan lañ ci mën a jàngate parce que wax ji bëri na alliance ou soutien. bon man xam nga man. Mhm. man idéologie laay soutenir man du ma partisan du benn parti politique. ñun ay activiste lañ. Mhm. du Karim mouvement Nittu Dëgg Valeurs la. ñun ay activiste lañ yoo xam ne dañuy xeex pour le bien de ce de ce de ce de le bien de ce pays là. comprendre nga léegi nag loolu dafa nekk loo xam dafa am solo ko ni mu amee solo nag mooy. c'est-à-dire Ousmane Sonko dafa am lu mu indi. loolu nekk loo xam ne dafa fekk ñun ñu nekkoon ci. comprendre nga gis ñu woon ku ko jëmmal. yàlla may ñu nit jëmmal ko. ñi ko fi joroon jëmmal yëpp réussir ñu. après dañ leen sànq. ñu mel ni ay ñu Mamadou Dia ñu mel ni ñu mel ni Afrique amul chance perte na Thomas Sankara. perte Sénégal perte na Mamadou Dia. perte na ay sari loolu ne bu ñu yàlla dimbale ñun suñu génération ñu fekkee loolu. ñun nu ñu nelaw comme paay suñu paay nu ñu nelaw woon ba perte Mamadou comprendre nga man a wax man ni Serigne Touba ay jamono su ma fekkoon man mm-hmm. man Touba du ñu fi bàyyi rek bi mm-hmm. man loolu ma sama gars di ma ree quoi mm-hmm. comprendre nga loolu nag laa bëggoon man dama wax sama jamono man li ma fekkee man sama jamono man maa ngi ma àndal li ñu gëm idéologie bi li ñu gëm di ko xeex bu ñu gisee nit ku xeex dañ koy xeexle ba daanu wala bu ñuy taxaw di am ndam dañuy am ndam te incha ñu ne Ousmane Sonko ba biir palais muy gouverneur nag ci gouvernance boo xamante ni amul ay lu ko neex def wala lu wax rek noon la wala ay tag ak tàccu déedéet mhm. nii déjà nii ci opposition bi ñu ànd ak moom muy opposé mhm. ñu ànd ak moom ci gis-gis yi ñu gëm mhm. ak principe yi noonu la ñuy ànd moom ba biir palais ci suñu gëm-gëm ñu à notre manière donc ba biir palais jàpp nañ ne daal fi ne moo fi nekk non boo gisee keneen wax ma soaay soaay Sénégal da bu ñu saaga ne Ousmane Sonko rëcc leen man man de vraiment ma xam ne Sénégal am yooyu ma yërëm naa ma yërëm Sénégalais yi nag sérieusement alors leer na kon mën nañ jàpp ne donc Karim il est avec Sonko. non loolu wax c'est-à-dire loolu wax loolu biti la fanaan. Hmm. foofu nga toll. bi ñoo naat tey lu tax gisuñu la. waaw du xam nga dafa am dafa am ay ay yu bari quoi yoo xam dañ ko gérer. Mhm. comprendre nga. Mhm. léegi nag benn benn dafa am ñoo xam ne peut être ñoom ñoo dem Bignona man mënu moon dem Bignona gis nga liggéey bi fa mu mhm. ñu ngi pare manifestation bi nga xam moom def pour lutte contre homosexualité. am solo yu ma ci jox nag. mënu moon dem Bignona quoi mais gis naa ni gars yëpp ñu ngi fa ñoom jë ñu ngi fa ñoom euh, nit doof xam nga ay ñoom Jiw Mari Sagna ñu ngi fa quoi donc Euh, ku nekk rek ak ci côté bi ngay féete quoi donc man maa représenté gars yi fii tey. d' accord ci organisation bi. ñu bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. Euh, di di di nuyu Sénégal yëpp. Mm-hmm. di wax ni rek le combat continue et ñun amuñ xarma yàlla kenn. Mm-hmm. Sénégal rek moo ñu ñor. ànd ñoo kenn contre ñu kenn. ku Sénégal ñor rek ñu gis ne intérêt Sénégal moo tax a jóg. te njëriñu Sénégal ñun ñu ngi ànd ak yow. salaamaaleykum. jërëjëf mbokk internet Dakar net euh, Abdou Karim Gueye xurum xaq donc ñu leen di dig daje beneen yoon ak beneen invité incha allah jërëjëf.